lay teema jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jëmalul boppam soxna jaara dellu kañaat bakkaat wayaat dellu sulliwaat ndami soxna jaara jaloorem nu ñaaxuwaat ma dellu kañaat bakkaat wayaat dellu sulliwaat ndam soxna jaara ki jaloorem nu ñaaxuwaat mam jaara ta ci géejëm gi saxoo du su géeb lay lay la la te tibb ci xeewal yi kor mam jaara nawet baa ngi ah. waamew yàlla waa ngi di wal fu waay tax mu sax meññ de baax a baax xam ne ñëpp ñu ngi dugg ci fi nga xamante moo di baara bu soxna Jaara Laay soxna si ñu fan nga jógee ba tax nga màggal ci ci màggal soxna Jaara Laay Mariam bi ak ban yëg-yëg nga ci am maa ngi jógee Touba xanaa kontaan rek waaw ban yëg-yëg nga am ci màggal gi nga xam ne ñëw nga fi waaw xanaa neex rek kontaan nañ suñu xol sedd na ñun ñëpp barke Serigne Sall xanaa teew ko ne nga ni ko teew fan yu bari ñu ngi leen di fay man yëg-yëngam ci màggal soxna Jaara Laahi gi xanaa di ci bég rek di di sant soxna si bu baax a baax di sant soxna maam Marème Mbacke moom sëñ Abdoulaat di suñu di jawriñ ci kër sëñ Modou Ablaye sëñ Modou Ablaye Fall Ndar moom lañ yaakaar tey ëllëg soxna maam Marème Mbacke mi mu yore mooy suñu jawriñ moo ñu indi fii ci Porokhane nag ñu siyaare si ñu di ko sant di ko ñaanal fan gudd ak wér gu yaram di ko ñaanal li maamam di séddale yàlla bu ko ci kenn ëppale di leen ñaanal yéen itam yéen ndaw ñi ñu ngi leen di ñaanal bu baax wér ak kàttan ñu yàgg ko siyaar si soxna si yàgg ñoo jiite ñu yàgg ànd ak moom yàgg topp ci gannaaw yàlla may ñu wér guñ ko yàgg a liggéeyal ci barke maam jaara ba waaw di fi sàkku ñaan macha allah di sàkku Dakar fa lañ jógee ay 6 heures lañ si fii suba ñëw rek ndax maam jaar màggal si ko ñu siyaare ci barkeem waaw ñu fekk ñun ñëpp yàlla ci tey ci màggal soxna jaar la ak ban yëg-yëg ci màggalu maam jaar gi. man maa ngi jugee Mbour maa ngi tudd maam jaara moo tax ma ñëw ci màggal gi fas yéene ziare sama bàjjan rang sonn loolu moo fi tax ñëw ndax ma am barkeem rek moo fi tax ñëw si màggal gi. macha allah yow nga tudd Soxna Jaaratullaay ñëw ci màggalu bi nga duggee Poroxaan ban ban yëg-yëg la gën a dolli sa diggante ak soxna si. yëg-yëg bu bu kii kay bu métti laa ci yëg kay fi mu doon nii kay sama xol dafa fees sax mënu maa wax billaahi. Bamba sooy leen mu fees ci say ah. kañal kooka bakkal kooka woy kooka moo ko jëlee Seydil Bamba sooy leen beneen mu feese ki seyyaa kañal kooka bakkal kooka way kooka moo ko def Seydil Bamba sooy leen beneen mu feese ki seyyaa baaxam gu rëy gaa tax sunu bandi nëb. laay lay la la rafet laam nga moo nëbbit. waaw sunu ñaawle esikiyaat. sëñ Bamba te moo tax nu am xiiwil. sëñ Bamba te moo tax nu am xiiwil. sëñ Bamba te moo tax nu am xiiwil. sëñ Bamba ci sunu tey di seen wiir la. lu raw loola ëllëg lii lu war fay ñëwaat ayaa yib naa yaa say xanaa yaa di meññetam di jaadu xaat na dil nu xewel yu rim betaat su tuma ngi ru yaa ngi nii jëmu yaa ngi nii lu jëbal gàddaay yow fi yow kenn du delluwaat ba yaa nu moom moom alelun moom di say alal la sunu yëngu ak sunu dal sunu dund mbaa nu faatu te lew la doom it foo joxoon foofu leen di jëli joxoonun gisul lu dul yow sunu te lu yees lu waat jigéen ñoo ña jëkkoon kenn la amul woon ku mel ni yow di ñëw ba yow mal asiri kenn dootu lay amaat loolu la muy tegtale mooy soxna jaara te mam lay ndem moom jur Rasulullaay ndem moom rek mooy mébétu ma woon ngir ak pas-pasam moo rëy ba tax yombu ceerayaat keroog bam yéree kaamil ba yam ci waxaati mu nabi na dal fay fas bu kon tey sa saat baa ngi joxal ko mbir yu rëy la te suma salima wa asaabil boromam ba koy falaat wasala ala xayril wara suma sallima waali wa ashabi boromam ba koy falaat dellu kañaat bakkaat wayaat dellu sulliwaat ndami soxna jaaraaki jaloorem nu ñaaxuwaat mam jaara ma dellu kañaat bakaat waawaa wayaat dellu sulliwaat ndami soxna jaaraaki jaloorem nu ñaaxuwaat mam jaara ta tànk ci géejëm gi saxoo du su géeb euh, ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare euh, wax dëgg yàlla boo ñëwee fii di ma laaj ci maam soxna Jaaratullaahi Mariama buso ci barab bii nga xam ne euh, ku ne xam na ne mooy barabam te ku ne xam na ne soxna jaare dafa liggéey ndax fanweeri at ak ñett ku ko am nga xam ne dafa tolloon ci diggi ndëndam yàlla suñ borom moom ko waaye ku jëf yàlla fay la ku dikk poroxaan xam ne yàlla fay na maam soxna Jaaratullaahi Mariama Bousso ndax sëñ Tuubaa sax noonu na alaaji baara màggal gi mu fi mujjee ñëw dani Serigne Touba nee na euh, poroxaan boo ma fi njëkkee xaar ma te xam boobu boo boo nee xam ne boobu moo boo boo fekkul it boo boo ma fee ma fekk la fa kon ku ne xam ne ni soxna jaara liggéey na waaye yàlla fay na ko soxna jaara nag li tax mu baax mooy waajuram daa baax ndax alxuraan dane wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi isni rabbihi bu ne xam na ne Mame Asta Walo Mbacké ko jur Mame Asta Walo Mbacké Ahmadou moomu nag wax nañ ni bindoon na ñeent fukki kaamil ci dundam te da daan jàggale mboolem xeeti xam-xam yëpp mësaana sol jàllaabe ak tey waa de waaxuwul góor nga koy teg ngir fit ak jom ja ak njàmbaar ja kooku nag bàyyi daam bu julee soxna jaara yàlla na fan bu jógee ak it ban yëg-yëg nga am ci li nga xam ne tam moo di màggal Porokhane bi nga ñëw édition 2022 ñun Dakar yëpp yëngaan ni nga duggee ci nga xam ne Porokhane. ah mbégte mu rëy sax gisoo mënuma sax wax kontaan rek maam jaara moom duñ doyal te moom ma nga ne sama doom maam jaara laa ko tuddee waaw sant bu wér wér. waaw di kontaan bu baax a baax di ñaan yàlla ñu commencé ñu commencé ci bisimilahi rahmaani rahim yeggale si alhamdulilahi rabil alamina di sant bu wér di siyaar bu baax ñun fas yéene sax ci murid sadex rek barke Serigne Touba tey bu doon wax ban binkaane ngay def ci ndaw yi léegi nga xam ne moom ay tout tànk yu door a judd ñu tuddoon Soxna Dia ah ñu roy seen turandoo rek roy bu baax a baax maam jaara moom kuñ ko xas tudd rek wàcc nga say wàccoo nga ak waaw li ci des yow yaa war a eggale rek sax ci ndigal moytu ay tere waaw surtout nag col gi ñu mooy col gi bu baax a baax waaw roy seen turandoo daal sant bu wér a wér waaw ngi lay bëgg merci dama mën nag moo la sunu yëngu ak sunu dal sunu dundu mbaa nu faatu te jox ko wàccuwaay bu baax a baax yaakaar naa yëg-yëg bi ñu ci am bëri na torop ndax lii nii ku fi ñëw ku rek lu ci bëri dañ naan ñun lañ ko defal tax suñu bàjjen moom bërëb bi am lu jafe am loo xamante ni kenn mësu koo am ci biir àdduna bi kenn ku ne jógee ci réew mu nekk ak fu nekk ñëw ngir jëmmi soxna jaara kon yaakaar naa ñun bu ñu tuddee soxna jaara am nañ lu rëy tamit ñun nag ñoo ngi jugee ba le Touba Madiana daayira soxna mi si la muy sëriñ soñ bu moo suñu jëwriñ ñi nag ay turandoo soxna jaare leen la ci soxna jaare yi waaye ñu suñu daayira lépp ay soxna jaare la waaw kon nag kontaan rek la ci mën a def di ñaanal suñu bàjjen nga xam ne moo tëdd fii di noppaliku suñu borom gën a yokk ay leeram te taal suñu ci barkeem te ñaanal suñu taxaar nga xam ne fi moo fi toogal Serigne Touba suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér di ñaanal ñëpp rek képp ku fi ñëw daal yàlla suñu borom faj say aajo ci bàkki suñu ma jaar dañoo bég ba mënuñoo wax wallaahi keroog ba mu yéree kaamil ba yam ci waxaatimu nabi la dal fay fas jur kon te ci saat ak njaxlaf ga yin moo di gànjaram rasa bi xoona saat xoona ko daay waat te la defu ko daay ragal yàlla di but lay mu war sallu kër saayam san ci kër doy lu dëkki ba tax am duy kaf ba tax mu am duy kaf da ko jënd ñëgu lay tee maa jóg way fi ngeen jilin sa wéy ma jommalul boppam soxna jaara